ndeway ndeway ndeway seymane ndewoy alaykatim kam mangala yaara jere ngeen jëf mbokki Sénégal jere ngeen jëf mbokki àdduna rawatina yeen ñi suivre sen suite bi lit Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu di leen xiar di am bekté contenté comme niñ ko défé chaque jour rek di leen topal lamb ak li ci biir mo waral tay ñoo fi nga xamante bi moy Nations Unies c'est un grand champion di ndanan nekkon ci biir lamb ñu jekki jekki gis ko mu xaw a tout ci biir lamb nam demone fi voyage ñewana nak ñu fas yéene waxtaan ak moom carrière ba fi carrière am ak làmb ni mu ko gisee muy Pape Konaté capitaine PK le penseur qui met KO dañ koy bàyyi mu nuyu nuyu ñu ñuy suivre su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi Pape maa lay nuyu di la siyaar awuzu billahi mina seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad wa mhm. gannaaw bi ñu sante yàlla ba noppi julli ci yonante bi ñu ngi ñaanal way jur mhm. ndax yàlla ci boppam moo ne gannaaw bi ngeen ma santee

ñu xaw a bokk génération ci làmb mhm. suñu làmb commencé en 2005. 2005. premier mi ngi génn 2005. 2005 mhm. boobu. Mhm. ci la Pape Konaté bëree ak Ernest Diato terrain central. terrain central. muy stade Alassane Djigo. bu Pikine. sëñ Modou ñaa tëggoon ko mu nekkoon drapeau Amadou Diarra ñuy am ndam ci ko ci weer woowu. ci la sunu làmb génn. kon ñu séminé ak ñoom ba fi ñu toll nii. Mhm. kon tey jii suñu màggee. ba tey ñu dégg ni Sénégal. Lutte Sénégal Lutte Sénégal TV. Mhm. Mhm. ñu ne ku nekk ci bopp bi ñu ne Abdoulaye fi fierté la. kon dañ koy soutenir pour loolu dëgër taxaw jëm ci kanam. dëgg la donc foofu laay tàmbalee. nga ne pa capitaine PK. waaw waaw capitaine PK dafa doon ndaw. dëkk Pikine juddoo Pikine màggee fa yaroo fa. waaye nag tàmbalee carrière am Géejawaay. Géejawaay. ndax li tax mu tàmbalee géejuwaay mhm. mooy Papa Konaté bi mu gimmee doon xale mhm. toll ci âge de seize dix sept ans teel a bëri lool mhm. dafa gis ay mag ñu ko inspiré damay tàmbali ci Ilimane Diouf muy rakk Boy Diouf Ilimane Diouf ma ñëw ci Mbàkke Ngom bi ñu daan wax Liiru Jaan ñu yoroon écurie bi nga xam mooy écurie plateau nekkoon marché Sam marché Sam ñu def foofu suñu début bi ñu defee foofu suñu début muy géejawaay waaw bañ dem ba gimmi yàlla dogal Ilimane Diouf dëddu ñu wéet amatuñu mag mooy waral suñu transfert ñu dem Pikine. Pikine mbooloo muy Pikine mbooloo bi Papa Diop yor. Mhm. loolu moo yóbbu Papa Konaté Pikine. Pikine Papa la. Mhm. produit géejawaay dafa tàmbalee géejawaay. Mhm. dem Pikine dellu siwaat géejawaay. léegi foofu laay taxaw ñu tàmbali waxtaan ba ci kanam. foofu laay duggee nag ci li nga xam ne mooy sa entrée Pikine bi nga ñëw Pikine mbooloo yan champion nga fa fekkoon. waaw suñu entrée Pikine. dafa nekkoon entrée bu rëy ndax li tax mooy. dañu tàmbale plateau comme ni ma la ko waxee. Mhm. jimmi foofu ci làmb jàng fa làmb. Mhm. miir ci mbappat yi yàlla dogal ki ñu doon jiite di Ilimane Diouf nekkoon rakk Boy Diouf. Mhm. doonoon suñu mentor. teel a génn àdduna mu nuroo nag loolu tafaagee nag ñu ko xam Ilimane Diouf bu fekkent ni yàgg nga fréquent bokk ak nag Mbàkke Ngom foofu ci booru école siège bi école siège bi te nekkoon champion bu mag ñu bari duñ ko xam nag mais waaju mënoon a bëri la génération nag ñoom Zil ak euh, consort ñoom Zil Bale ñoom Tyson ñoom génération doon bëri mbappatu Balla Gaye bi daan am ca koñu jàmbaar mhm. donc foofu la ñu gimmee ñun làmb dugguñu mhm. waaye Pikine suñu entrée foofu mhm. dafa nekkoon benn déclic parce dañu jugee Euh, écrit plateau ndax dañu wéet foofu. waaw dem di yokki doole Pikine. Mhm. ñu nekkoon ñett nag. Mhm. muy Papa Konaté. Papa Konaté Simu bu fekkee xam nga écrit plateau. Simu mu nekkoon bërum séeréer mu mënoon a bëre. waaw nekkoon écrit plateau ak ki nga xam ne mooy Serigne Ndiaye numéro 2. du bii nag di bëre tey. waaw Serigne Ndiaye numéro bi nekkoon écrit plateau. Mhm. ñoo àndandoo woon écrit Pikine ñëw entré fekk fa nag. Ndiaga mu doon mentor bi. fekk fa ñeneen nag booba ñoom baaboo yeeg ñoom décroché muy écurie Pikine mbooloo boobu la nga xam ne fa la Papa Konaté nekkoon mhm. fa la Malal Ndiaye nekkoon fa la Boy Sey nekkoon mhm. ñu nekk nag génération doon jongo doon jongante nag di di di ñafe di indi Pikine mhm. kon moment boobu fekkante boo fa ak Cheikh Cheikh Onil dafa ñëw après dafa ñëw après ñun ñoo jiitu Cheikh Pikine ndax Cheikh mi ngi ñëw ak commando ñoom ay sotti bëre la muy Cheikh muy commando maanaam ñun cheminé eh, nañu Pikine lu yàgg ñoom ñuy soog a ñoom ñuy soog a après xalé di ñew ñom tonner ak ñooñu noonu. ñom tonner après la. Mhm. parce que man ñom tonner sax fekkante wu ma ak ñoom Pikine Bolo. fekkante wu ñoom avant ñom ñuy ñew man fekk na décrocher na mhm. dem fi nga xam moy école de Balla Gaye mhm. ndax yaakar na ni contrat bi mo doon wu doole. équilibre Balla Gaye juddu. waaw Balla Gaye un musa nek sama nit. ndax même dama daan nek équipe Pikine euh, Mbolo. di préparer combat yenn heure yi dama ko daan rencontrer ñu dem ci camp sapeur di liggéey man ak mom bari na combat yi ma def ak noonu Balla Gaye 1 yàlla na ko yàlla yërëm yëkkatee naa ko jàmm mm-hmm. Mm-hmm. muy sama papa sama wëllëre yaakaar naa ni foofu lañu jaar man ak moom mm-hmm. moo tax bi ma euh, toogee Pikine ba benn instant bi buux buuxloo bi bari ma sentir na war a def déclic mu créé école d'élite école d'élite bi xale yi soxla luur bu ñu jàppanteel ñu waxtaan man ak moom ma ñëw région de école d'élite Balla Gaye boo fàttalikoo bi ma fay ñëw ñoom Balla Gaye ay xale lañ ay xale yu ndaw lañ

ay champion jaar nañ fi ay ndaraan jaar fi mais gis nga tey fi fi Pikine mbooloo toll. loolu jàpp ne moo jafe-jafe bi loolu du Pikine mbooloo. Mhm. maanaam écurie mooy doxee noonu ak làmb tey ñu ngi école de lutte. Mhm. ndax boo xoolee en général maanaam écurie déclic lay nekk rek ndax tey déggoon nga fi Fass. Mhm. tey Fass ba nga daan dégg ak Fass tey. na différence am na différence. kon génération yi dañuy duggante rek dem di ñëw mhm. léeg-léeg écrit toll foo xam ne day am flambeau mais léegi li ko indi loolu mooy dispersion bi mhm. dafa bëri dispersion mhm. dañu tasaaroo xool Pikine dañ lay wax ni lu mat fukki écrit wala fukki écrit juróom ñi nga fa dafay bokk ci liy ray maanaam écrit mais boobu bu jëkk da nga naan Pikine mbooloo boo nee Pikine mbooloo da gis mbëri yëpp fa la ñu nekk wala boog su am exception da nga naan Fallaye Baldé nga ciy mais léegi nag écuries dañoo bari. dañoo bari bu écuries yi baree nag diversité bi bari mooy hmm. indi maanaam euh, nga naan écurie bi léegi doole ba mu amoon amatu ko. ko parce que esprit partenaire dootul am. du amati parce que mbër yi ñi ngi mënantee ci esprit partenaire. partenaire mooy ci sa biir écurie. nga hmm. am ci fukk yu mel ni yow. Hmm. bu bi seere bu mhm. ngeen nekkee entraînement mu mel ne làmb yow daa nga nekk di xëccante pour ñëw ku nekk di xëcc pour ñëw bu ko defee athlète ba fay jógee day nekk ci forme mhm. day nekk ci état parce que ña war a dajal am nañu toll noonu ñu muy bëreel mhm. mais léegi booy xool équipe bu nekk benn patron moo fay nekk donc benn patron boobu nag mooy gouverner mooy waral ku ci dem ba ci kaw rek difficulté yi ñëw day ñëw parce que maanaam li ñu war a teg seen te mbër du nekk patron. fekk euh, la fekk mais te gis nga tey fi mu débuté ba tey fi mu toll ci biir làmb. dafay di bëreek ay ay moroomu rakam. dafa am lu koy expliqué. waaw du biir dafay xëy si. Mhm. waaye làmb aussi du la jox ñaar sens ñaar yoon. déedéet. Tonnerre dafa am lancé bu baax départ. Mhm. ñëpp gis mbër ci moom. Mhm. waaye la tax mu cité war point d'intégration am na. parce que sportif dafa am lu koy tiye am lu koy wàccee. am lu koy wàccee. kon su yéegee. Mhm. am na lu tax mu yéeg. Mhm. su wàccee it am na lu tax mu wàcc. Mhm. mais loolu problème encadrement lay nekk wala problème lan lay nekk. léegi tonton tamit saa boo ko séenee doone kii nekkul ci forme. waaw xam nga toujours nag. Euh, Sénégal. waaw dañuy jaawale forme ak yaram. ak yaram mbër day compétitif. mais suñ la gisee nga ne ñum rek. waaw ñu ne mu ngi ci forme. fekk mooy loolu des fois nga ne ñum te doo nekk ci forme. dëgg la parce que forme intérieure la. dafa am résistance am intensité. Mhm. te mbëri léegi liggéeyatuñu intensité. Mhm. volume lañuy ñuy liggéey ak masse corporelle. nekk fa ñu ne eh, sa waay 10 na. Mhm. mais est-ce que condition physique ba nga fa. mi fa carrément. parce que tonnerre boy xol bi muy génn. bëre ba dafa coriace dafa coriace. mu am rythme boo xam ne nga xool tonnerre jamono bi muy bëre Yékini Junior. waaw ay série bi mu xeex ak moom. dem si yàlla Moussa Dioum da nga xam ne athlète la. mais xoo xoolee tonnerre yi mujj yi nga xam sport. comme mhm. ñun ni ñu ko xamee. waaw da ngay xam ne am na lu manqué. am na lu manqué si moom des na. Mhm. loolu nag dafa lu koy expliquer dafa yaatu. encadrement mhm. boobu nga lim dina ci bokk waaye mbër mi tamit hygiène de vie am ciy bokk. bu ci kenn ndax. mbër mi wàññi wàññi wàññi entraînement yi wala wàññi lu mu doon def. mën na sax di entraîner. des fois ngay entraîner waaye do ba du fa nekk. du nekk parce que entraînement dafa lu koy gunge. lu koy gunge. moo tax mbër encadrement am ci solo. ndax encadre lii lii gunge entraînement. Mhm. mooy sérénité. sérénité luy gunge entraînement mooy sérieux. Mhm. gis nga nit ki su fekkente ne sax ëpp nga ko es li ngay te mu gën la sérieux. Mhm. bu ngeen duggee ci compétition moom mu dab la ci entraînement dafa lay romb nekk. mais nag mbëri lu ci bari dafa am ñoo xam ni dañuy dëgg dëgmal carrière. succès bi ñëw ñu fàtte yu bari. ñu fàtte lu bari. bu ko defee rek mooy indi déclic yenn déclic nga naan kii est-ce que moom la. parce que nag nit ki bu fa bu daan def dara ba mënatu koo def. am na lu xew am na lu xew y' a quelque chose. y' a quelque chose. Mhm. donc loolu nag ñi nga xam ñooy dund sport ñooy xam loolu. kon Tonnerre dafay am point d' mooy lan. Mhm. mooy Tonnerre lu tax bi muy lukki ko. Mhm. doonoon koo xam ne ñëpp dañoo woon ci yaakaar. ñu dem ba mujj mënatul daal. li gis mbëri dañuy favoriser Serigne à 100 pour cent. waaw loolu mooy ñàkk mbër gi ñàkk a nekk ci yow. waaw gis nga mbër. yow daa nga ñëw école de Balla mais da nga daan ñëw euh, euh, école de lutte xool Balla Gaye muy entraîné. Mhm. mu wóor la ni. Mhm. dimanche su bëree dafay daan. Mhm. ndax lim liggéey. ndax da nga koy xool xam ne kii assurance dafa nekk ci moom. dëgg la gis nga mbër. entraînement mbër égal contact. contact waaw da ngay taxaw. lu mat fukki nit di jaar ci yow ku ñëw nga daan ko taxawaat te doo xëx. waaw sa yaram bëri nekk ci. nga xam ne fu ñu la laal nga bëre. mais gis nga nit du tricher du nax boppam. mbëru léegi dañuy nax seen bopp. nax seen bopp. mooy du ñu entraîner. Mhm. du ñu def li làmb laaj ba bëgg daan di ko defee nag léegi folklore moo fay nekk. Mhm. cent cent mille butéel ci biir géew du làmb. du làmb. Mhm. nit su gëmee boppam entraîné ba wow kongo day yàkkamti arbitre soufflé. mbëri léegi dootuñu yàkkamti arbitre soufflé dañuy simuler. di simuler ba mu guddi. jël seen temps ba mu lëndam. ci biir bëre bi ñuy simuler di simuler ba bëre bi jeex. ba bëre moo lay wan ne entraînement nekku fa. nekkatu fa ci mbër yëpp nag laay wax naa. si mbër yëpp mbër yi ma fi gis man. di leen xool. Hmm. ay benn benn nga ci gis ñu yor état bu wow koŋ. Hmm. ñi ci des yëpp demi état la ñu yor. waaw ñii état li jënti. Hmm. <laughs> état li jënti ah. <laughs> ndewoy ndewoy ndewoy say maane mangala yaara